mën naa laa daggal li li ñu war a dagg waaye mën naa daggaloo loo bëgg loolu dagg mais jaay mën naa defar waaye mën naa yàq léegi nag ku la gën a organisé yow lay defal li nga bëgg ñi gën a organisé wu mooy ñi bañ société bi jaay woon ñoo wu moo tax ñoo gën a mën a jëfandikoo média yi aleykum salaam moo tax média yi ngi defar waaye ñu ngi yàq te lu ñu defar ci bëccëg bi yëpp benn trente minutes ci guddi gi mën nañ ko yàq joxe naa fii léegi misaal ci fisal bi ñu fisal mbon ba kenn faaleetul ku bon kenn seexlootul mbon kenn xeebatul ku bon ci diggante ay émission tës ay xalaas waaye effet état bi média yi ëpp na lool ci film yi dawal ci débat yi ñu organisé sax débat yi ñu organisé sax ñu ngi ciy yàq lu bare bare bare d'abord ñi ngi ñi ngi siiwal crime c'est-à-dire lu ñaaw lu nekk léegi dañ koy génne ñiy rey nit ñu ngi leen di génne ñii saaga ñu ngi leen di génnee lu bon lu ñu mas def léegi buñ ko defee nga teg sa te loolu am na ñaari effet effet bu njëkk bi ci julli mooy day rey xol yàgg a xool lu bon yàgg a xool lu ñaaw day rey xol bi ci topp mooy day taxal ñeme lu bon bari na lu xale yi léegi ñemewuñu ko woon média bi moo tax ñeme ko film yi ak scotch yeeg yooyu moo leen tax a ñemee ñu bon lu def leen ndax dañ koy essayé ci seen morom ñi ngi re xale yi ñu ngi reyante ñu ngi jamante te loolu yëpp dañ leen koo jàngal te loolu yëpp média bi def na kon média day yaatal crime day yaatal criminalité da koy yaatal ndax da koy ñemeloo ñi ko bëggoon a def te ragal waaye day tax mu woyof ci bëtu nit ñi sax dañuy faatu ñu ñëw fil na ko noonu génne ko oto rey loolu Sénégal rek ko ñëme Sénégal dong moo ñeme nit faatu ci accident nga fa Sénégal fii dañ koy def euh, temps yooyu am na audio bi muy yónni yónnee ma sopp ba di ko seetaan mais du ma ko defee hmm. jigéen di ñu tiim di ko jam ay paak benn couple defe naa seen jànkaloo woon nañ wax seen jànkaloo benn benn étranger benn négresse jigéen bi ñuul ay naar tiim ko di jam paaka ba mu mu def yaram ne ñu fël na ko yónnee ma man kii ma ko yónnee lan la bëgg ma def <laughs> lu dul naqaral sama xol bi noonu bëgg maa naqaral la lan lan la bëgg ma dama ko woo ma ne ko sëñ bi tooñ nga ma ko ci kanam yàlla te su ma sañoon doo yónnee te maa lay ñaan bu ma ko yónnee loolu musiba la fi mu ne amul lu loo yéem xool ne ndax lu ñaaw lu ne ñu la koy xoolee far far loolu média yi ñoo ko def média yi yàq nañ jikko ju rafet ndax jikko ju rafet léegi du fi du fi ndam ñaaw fi jikko mooy ndam bokkoon na ci li tax nit ki di góorgóorlu bu baax mooy bu baaxee dégg jërëjëf léegi baax taxu la dégg jërëjëf léegi bon mooy tax a dégg jërëjëf te loolu média yi ñoo loolu mooy wax nañ ko démb ci émission bi ba fi tuur jógee lan la nekk mën a xew ci dëkk tuur ba ba déggati ko est-ce que yéen a ngi dégg tuub rek non mais Sénégal bi muy soppeekoo ni mu gàllee mais kenn ku si ko gis bu njëkk da ngay dégg jékki rek dégg kilifa gi ne toog ana wax loolu ñu ne diw mu ne ba léegi kenn waxatul tuub est-ce que ñi daan wax tuub ñoo daan wax tuub ñoom la la daan fexe wax a tuub naqaree yow ci sa bopp da ngay soppe ko di doo yaay dem nga dara du la naqaree c'est trop c'est trop c'est trop lu métti la lu métti la fi toll su ko defee tasaare mbon wax nañ ko fi indi nañ aaya bi loolu modd la nekk ci dëkk bi lu waaye xam ci lu bon nag ko wax ndax soo ko waxee am xaalis gannaaw bi laa yëg ne ndeke saaga yi am na xaalis ndeke soo mënee saaga surtout nga saaga ku ñu mere ñépp ay bëgg a dégg liñ ko wax suñu koy ubbi rek am na point am na fu muy egg youtube moo lay jox ay millions ndekki am na ñoo xam ne mënuñ ma sañ bàyyi saaga ndax amul luñ liggéey amul luñ dunde léegi saaga rek mën a def pour am dara xam nga kooku dana saaga su ko defee ñu saaga kilifa yi saaga njaboot yi kenn ku nekk ka nga nawoon ñu tudd lu bon tudd loolu lu métti loolu lu jara xel la su ko defee mën naa tënk tomb bi foofu li ma ci waroon wax ëpp na loolu waaye li ma ci war a wax yëpp xam ngeen ndax maa ñoo ànd dëkk ci dëkk bi li ma fi wax yëpp maa ñoo ànd dund ko fii daal moom jagatu Sénégal bi jagatu te gisaguma lu décidé jagal lu ko décidé jagal gisatu ko kon nag ñun ñëpp ñoo am intérêt ci toog waxtaane ko ba mu dellu fa mu nekkoon te loolu mën naa nekk ndax nii mu mel kat arrangé wu kenn gëm yàlla arrangé wu ko gëm kon maa ngi jégalu ñëpp la maa ngi jégalu ñëpp ci li fi jaar lépp la doomu aadama moom daa ñàkk solo lool lu mu dugg rek ak ak dooma bi feeñ lu mu dugg rek nitam bi feeñ yëfu nit rek la yàlla yàlla jëngal yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàlla àggale nawet bi te barkeel ko suñu xel dal na am na weer ci gannaaw ñëpp a jaaxloo ñu doon bay ñu doon bay ñëpp a jaaxloo kenn ku ne si fit tam ndax xam gi ñu xam bu nawet am ñëpp a sonn léegi ñu ñaan yàlla wuyu ndox mi ñëw na incha allahu yàlla na continuer te nekk ndoxu barke ndax ndox mi mën naa bëri itam te duñ ko te duñ ci jëriñ kon yàlla na nekk ndoxu Mbàkke yàlla na nawet bi baax yàlla na réew mi am jàmm am jàmm ci biir yàlla na yàlla jàppale kilifa yi ñu taxawu njaboot yi ba delloo si leen ci seen sang ba yu bon yi nga xam ne moo ñu taxa am nañu naqar ci réew mi yàlla nañu yàlla jàppale oustaz jërëjëf kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay